Euh, ma dégg ko nag aussi donc muy wax loolu ba après ba bërki dem ba sax ma ciy waxtaan ak moom ma ne ko mais Cheikh man daal bëgg naa def daal benn gest daal ba nga xam ne que peut-être daal dina dina dimbali population bi dinaa yi nga xam ne parfois seen doole yamul wala sax du ñu jël am prise de conscience bi nga xam ne mooy war pour ñu ñuy dem di nettoyer seen loxo tout le temps wala ñu dem di jënd ay gel peut-être que sax ñun li ñuy jënd ci ay gel ak yooyu peut-être mën na am sax donc du mat.

moo tax nag man suma stratégie ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal mooy ñii nga xam ne mooy suma ay boy ñoom sax initiative lu ci bari sax si ñoom la jóge parce que ñoom tamit aussi ñu ay ay ay jàmbaar lañu ñoom ay boy ñi ñëpp xam nañu moom la ñuy wax tim Youssou Dial ñoo nekk ci nawetaani ñoo nekk ci lépp yàgg di ma jàppale. moo tax nag aussi léegi ñun dañuy con dañ koy continuer rek ba nga xam ne tey jii dans la semaine nag ñu continuer di ko def donc régulièrement quoi.